TV au plaisir de vous retrouver ci seen programme de la semaine 13 minutes de vérité te dañu am mbégte di fi recevoir ki nga xamante ni moom moo di l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ngir waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité réew bi dina ci bokk li nga xamante ni moo ñeel euh, wàllub dialogue bi nga xamante ni euh, ñi ngi koy rumbalaat président fan la toll également ci wàccaay bi ngir ñu tànn ak date ci nu mu gën a gaawee ngir amal ci li nga xamante ni moom moo di élection yi euh, ginnaaw bi nga xamante conseil constitutionnel rendre na ko mais également assemblée nationale li ñu dakkalee seen enquête parlementaire ñu jëm ci li nga xamante ni moo ni euh, retiré na li nga ni moom moo di candidature am lu mel également lan la war a mun a impacter ci mbir yi lan la ci suñu charte réew wax honorable tey lépp dinañ ñu ko faram fàcceel laata ñu sori ci jotaay bi ñu nuyoo ak moom dalal ko jàmm bàyyi ko moom également mu nuyoo honorable waaw maa ngi lay fay di am mbégte bu baax xam nga tey moom li nga wax ni treize minutes de vérité la pour askan war a xam. en tout cas di ngi am mbégte bu baax si heure boo ngeen ñu soxlaa. Mm-hmm. ñu wàcc suñu bopp pour ñu wax ak askan wi nga xam moom la war a dégg. tam mm-hmm. lépp dëgg. ñu ngi lay féliciter encore ci débat bi nga am def te mu am solo. di nuyu waa Touba yëpp di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér. allahumma amiin alors Touba googu noonu laataa ñuy dugg ci actualité bi euh, la ñuy Euh, Cheikh Abdou Bara euh, Touba da nga ko bokk ak yeneen responsable politique ñu mel ni ki ñoom Cheikh Thioro Mbacké ñu mel ni sax mun naa si sax sarsare ba tudd ci sax ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye pourquoi déggoo mënta am seen biir pourquoi coow tout le temps ñu koy dégg ci seen biir. ah bon dafa am ay coow yu yow xam nga ni dafa am ay coow. non pour man xam man am na coow parce que coow booy coow da ngay coow sa morom wala sa natt man du ma coow man li ma ñor mooy liggéeyal askan wi liggéeyal Touba te maa ngi ci. leneen du ñoruma leneen lu mu mën di doon dama koy déggee ni waaye xam naa ni du loo xamante ni lu ma gis la wala leen xam naa nag dégg nag nit ñaa ngi wax ay coow coow mais man pour man euh, coow amul parce que man la nga xamante ni moom laa séq ak waa Touba séq ko kilifa yi fa nekk population bi nga xamante ni ñoom ñoo ma fal ñaari yoon ma nekk assemblée ak cër bi nga xam moom la ma yàlla jox te duma ko foyee xam naa bu baax a baax fi mu waa Touba teg ak fi ma leen teg ndax département Mbacké décret département boo xam ni dafa am solo ci Sénégal ndax ku ko gagné rek mën naa ne gagné nga réewam. te ba ma tàmbalee politique ba tey fu mu mën di bokk ci parti wala coalition. boobu mm-hmm. mooy gagné. Mm-hmm. kon mënumaa fay waa Touba te bii mooy sama deuxième mandat. Mm-hmm. ñenn ñi ngay tudd bu dee Cheikh Thioro sama sama frère la. ah man ko am na sax ñu ne du ngeen jaaroo taar fu mu romb da ngay na nag rakk seen mag nekk si tànk boo xamante ni xëy na bëgg nañ mel ni tànk boobu il faut ñu def daal loo xam bëgg a dab kooku wala mu tontu mais li am solo man yëguma lool man daal li ma ñor mooy Touba la dëkk sama frère la amuluma ci commentaire parce que frère laa ko jàppee. d'accord daanaa ko dimbale. Mhm. jàppale naa ko lu ma mën lépp ba bi ñu immigré seen permanence maa leen jox xaalis bu ñu immigré permanence boobu noonu. ah naa ko yoon bi mu war a jaar muy bi ma jaaroon permanence. Euh, bu Pastef bi jamono yi mu nekkee Touba bi mu ko inauguré ma ànd ak Madoun très seen ma àndoon ak Madoun euh, la ma war a def yëpp def naa ko daanaa ko conseillé ni ko nit ku baax nii ngay def na la Touba gënal politique na la sa jëmm ji gënal koo mën di àndal loolu laa gëm. parce que ñaata nga ko jàppale woon ci koppar. non lu ñuy wax aussi def naa ko jeex na sëñ Touba tam ma di ko def Ousmane Sonko mi moom laa ko seqaloon. moom nga ko seqaloon son Sonko. moom nga ko seqaloon nga wax. moom laa ko seqalaaw ak moom mi nga xamante sama rakk la. d'accord ak Madou mi nga xam moom la àndaloon ñëw fa. d'accord alors euh, coow loolu ñenn ñi di dudee rumbalaat di law di law di law ba barki Demba Ndiaye ñu gis coow lu ni mel éclaté ci ab plateau télé buñ la buñ la invité woon déjà ñu taxaw léegum ci. invitation bi ñu la invité woon 2STV ci émission bi di confrontation gis nga depuis lors yow yaay buzz léegi léegi en off maa ngi la koy toj naan nag man jaaxal na ma ndax coow lu nekk yaa ngi ci biir. comment ça se fait déjà bu ñu taxawee ci loolu Cheikh Cheikh Bara Ndiaye honorable député nangu dem ci ab émission bi nga xamante ne dañ ko fa boole ak seetkat bu tudd Mara Niass. waaw fi may wax rek mooy damay jégalu askan wi jégalu waa Touba ak samay mbokk yi nga xamante ni samay mbokk dara lan ak Sénégal yi nga xamante ñoom ñëpp am lu leen naqari ci mbir mu amoon te mbir mu mbiru nekk mbirum complot parce que après ginnaaw bi xam naa ne complot la parce que ñett ñëpp ñi ngay wax noonu. déggan nañ si bëccëg gi ba programme loolu xam naa ko mais xam nga àddina nit bu fekkente ne ba mu tàmbalee politique ba tey yàgg na lool mi ngi doog a juum te njuumtu boobu man nangu naa ne damaa juum parce que fa ma dem waru fa woon a dem parce que boo demee tey ba nekk candidat élection présidentielle am benn niveau bi nekk député ñaari yoon. bokk foo xamante ni fa la ñëpp bëgg a bokk. di président mouvement jàppal waaw nekkal fa askan président ma nekkal fa askan nekk coalition bi nekk candidat présidentielle. dëgg la sama naatungoo ci politique Macky Sall ak Ousmane Sonko. te loolu wax naa ko mais xam nga nit bu fekkee na ko wax junju ko te la nga ko junju dégg ko wala bëgg koo dégg lu fa am lu nekk da ngay xam loolu yàlla moo ko dogal parce que nag damay jàpp ne yàlla moo ko dogal ndax la ma fa dégg bu ma fa demutoon du ma ko fa dégg waaye nag euh, lépp lu ma wax lu nekk. askan wi nga xamante ñoom laay défendre tax ñu wax ma ko askan wi jaral nan ma ko parce que bu doon sama jëmm kese Cheikh du Bara Dolly du dem si ay plateau wala mu dem di wax loo xamante ne ay nit yoo xamante ni xëy na bokkuñu intention si moom wala ni ko yàlla def neexu leen tax ñu bëgg a yàq deram ak imaasam loolu jàpp naa ne ci réew mi moo lay wan ne la gor yi politique sax ñimeetuñu politique parce que day foo xamante ni ci àddina sax dama koy képp ku mënta bàyyi yonante bi ci wax ju ñaaw mënoo bàyyi kilifa diine yi ci wax wax ju ñaaw boo waxee wax ju ñaaw Cheikh Abdou dama def dama koy barkeeloo ci loolu te Sénégal fi mu toll daanaka wax ju ñaaw moo fi gën a nekk sax star wala moo fi gën a dëgër wax ju waxi dëgg ndax boo waxee dëgg ñu mere la te dëgg mooy li war a gën a am gën a sax ci dëkk bi boo waxee ay fen walla nga def loo xamante ni day tax moo am ay bës nit ñi ci ñi xam bëgguñu lu baax jëmuñu fenn ci li ñuy gën a amee. Euh, maanaam dafa mel ni kontante loolu nag dafa dugg ci société Sénégal te loolu gàcce la ndax tey kilifa yi war a wax yépp tey kenn ñi mu a wax ndax ko wax ñu saaga la. ndax yëf yi complot la invité ba ci plateau bi parce que man xam naa ni xam naa ni Sénégalais am ci yow. la loolu lañ bëggoon yàlla suturaal ma bi ma demee ba nga xamante ni xam naa ne mënu ma toog jóg naa génn dem te génn dem googu noonu mooy li gënoon si man parce que taalibe yëpp tàmbaloon nañoo ñëw foofu ci bunt bi te bu fa doon amoon tamit bokk naa si ah loo xamante ni waaw yëf na foofu ah waaw yeggoon parce que xam nga ñun damañ fa doon ñaari ndomba tànk yu ñu yor parce que man muuma sama bopp askan moom moom taalibi Sëriñ Tuubaa yi nga xam dañoo yaakaar suñu maam ngir jëmi Sëriñ Tuubaa duñ bëgg kenn koo xamante ni tey ñi ngi wax ci Sëriñ Tuubaa ak sëtam lu loo naa ne mais sëtu Sëriñ moom moo choisi def politique waaw xam nga xam nga ñun politique bi ñuy def dañu bokk politiciens yi parce que ñun dañuy bëgg di wax dëgg ak ku mën di àndal dëgg la ñuy bëgg wax parce que ñun xooluñu ko ñu mere ñu ko ànd ak ñun lépp luñ ci wax ngir jëmmi yàlla yàlla mi nga xam moo tax ñuy def ak askan mi nga xamante ni bëgg nañ ko leen di waxal ak bëgg nañ di dégg loo xamante ni tey dëgg la ak seen alal ji ñu yor ñu koy saax saaxee ñu mën see gis seen bopp loolu bu fekkente ni yow yaa ngi koy wax am ñoo xam bëgguñu loolu lu du sax ko ñu nëbb askan wi li nga xam mooy li war a am di leen gëmloo ay fen loolu jàpp naa ne bu boobaa ñi nga xamante ni tey yow yaa leen tax ñuy taal seen tele di taal seen rajo bu tuddee sa tur ngir di la déglu ngir njariñ ñu si war a jële kooku bu fekkente ni gis nañu leen di def loo xamante lu ñu war def la dañ si am naqaru xol dem ba tey daanaka li ma dégg si ay message ak ay kilifa yu ma woo ngir naqal yoo bokk man soldaati boobu ba ci waa Touba ak ñëpp ak Yoof ak Laayeen ak ñëpp kenn ku nekk yëkkati sa sa kàddu ngir ko xam ni dañoo laal pas-pas mooy tey nit mën nga ko mën mën nga ko wedd